قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى هاجت قصائدي قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن jërëjëf mbokk yi ba tey ñu ngi ci reportage yi nga xamante ne ñu ngi koy amale fii ci kër sëñ Tuubaa gi nga xamante ne moo nekk ci jumaa ji ah, ñu ñëw fii ci waañu soxna maam Issa Mbacke ahlu café ñu fekk fii jëwriñ ah, daam café ah, di jëm joo xamante ne dootuñu ko présenté ci biir kuréel bi sëñ daam dama lay rek nga nuyoo ak mbokk yi téléspectateurs yi lay bàyyi xel waaw ahousubillah bisimillah inna waliyallah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñaaw sant yàlla ñu ngi julli ci yonent bi santaat Serigne Touba mi suñu yaakaar yi tey di suñu yaakaar yi ëllëg di salaat ci maam Cheikh Ibrahima Fall tey ñaanal Cheikh Mamadou Muntaxa xalifatul am li tarixatil muridiya mu yàgg fi lool tànd ak wér di leen nuyu bu baax te di leen jaar ci bis bu rëy bi nga xam ne mooy bisu xasida bi kon ñu ngi naan asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ daam sëriñ daam xanaa laaj bi ci topp rek moom moo di euh, liggéey bi naka ngeen ko préparer fii ci euh, biir kër sëriñ Tuubaa gi euh, jëmee ci bis bu sell bi ñu nekk. waaw liggéey bi nag niñ ko doore mooy lu jiitu sax njàngum xasida mi ku ne xam na ne bisu zikra alxames bi jàll muy tur bi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha woote woon Daaru Minam waaye ban jugee ci tur yàlla rek lañ jël mboolem bagage yi nga xam ne moom la ñu yittewoo indi ko fii ci kër sëriñ Tuubaa gi biñ ko indee bi yëf yi desee ñaari fan ci la éléments yi commencé ñëw ndax ku ne xam na ni section yi dafa dafa bari ndax collation moom euh, bu ne café meew ataaya ay ji lu ne nga ci ak was ak mbooleem xeeti naan yi rek noonu lañ ko faralee ñu ànd koog nag suñu jëriñ waa Hizbut Tarqiyyah ànd koog waa Kër Sëriñ Amsatu ànd koog mbooleem section yi bari waaye ñun dañoo faral li nga xam ne mooy wàllum kafe gi kon dañoo teel a ñëw bi mu desee ñaari fan ngir mën a waajal liggéey bi waajalin woo xam ne tubaarikàlla dañ murid nga xam ne sëriñ bi daa dogal ñu toog di jàng xasida wala toog di jàng alxuraan wala toog di def ay istixfaar duñ mën a jug fañ ne waaye ñun ñoo leen di waajal ay berne di leen ko dugg ndax 6 heures du matin lañ commencé liggéey bi commencé nañ depuis ci 6 heures ngir dina leen li nga xam ne mooy ndekki li ndekki li moom mooy ubbeeku googu ubbeeku gu mooy kafeeg euh, 6 heures gi waaye bi 7 heures jotee 8 heures ci lañ joxe ndekki ba nii arrêté ndax nit ñi dañoo bari installé matériel yi espérer indi machine bi ku ne xam ne ñoo koy ànd waxtu wu nekk bi ñu indee machine bi café geeg kaas yeeg lépp yàpp lépp yàmm na euh, ñu door nag segg euh, xam ne fi mu toll nii dañuy di joxe. ndax mën nañoo xam quantité de café bi nga xamante ne euh, segg ngeen ko fii ndax jàpp naa ne du quantité bu ndaw. déedéet du quantité bu ndaw moom daal kenn mënu koo xayma kenn mënu koo lim ndax dañ naan lim bi lañ app 250 kilos ñu leneen ñëw fi ñu dollu ko ci waaw nga xam ne maanaam kenn mënut a xayma wala yemale li mu café gi suukar si tamit noonu boobu ba léegi saako suukar yaa ngi ñu ngi ñu ngi jënd dajji case agité yi lu ñu programme woon réservé ko jeex na ba ñu wutuwaat leneen moo tax mboolem ku tedd gi moo tol noonu moo waral li ñu li ñu li ñu programme woon ci kante café wala ñu programmé ko ci quantité suukar maanaam jéggi nañ suñu suñu suñu programme waaye ku tedd gi nag def na fi xéewal gi ba la lépp jàpp ni na moo waral murid yi fu waay nekk ci biir jumaa ji wala bitti jumaa ji wala site yi nga xam ne moo wër euh, pénc mi euh, section yi dinañ fa ñëw ndax ay site lañ ko def samp barab boo xam ne boo tollee ci café da ngay joxe café boo tollee ci ataay da ngay joxe ataay boo tollee ci meew boo tollee ci was ba ci boisson yi nga xam ne wala tollee ci xéewalu moom la ñuy dënale ñu ñëpp dañ leen faa teg ngir di leen ko dënal loo waaye xéewal lépp yem na moom lépp yem na noonu lañ ko amale ndax ah, ngir ah, yéen ñi nga xamante ni yéen yor dawaayir yi ci nekk ci Touba ngeen takkatoo doon benn ba liggéey bi mel ni bu amee ngeen mën ko a ndax daayira bi pare na pour ànd ak mboolem daayira yi nga xam nekk ci Touba ndax mi ngi dox ay relation ci loolu. waaw waaw waaw ndaxte ndax ku tedd gi moo ñu jàngal ndax ca njaareem dafa joxoon benn benn benn mag benn benn benn benn gitax euh, xalima euh, jox ko ndigalal damm ko mag ma damm ko mu damm mu boole euh, say yu bari ay gitax jox ko ndigalal damm mag ma damm ba ba ba sonn mun ta damm mu ne ko lii de misaal la ndax kenn ci yéen bu bu bu beddee koo seytaan da koy mën a dara waaye bu ngeen daal lu ngeen song dañ koy daan moo tax Sëriñ Muntaxa loolu lay nuwaat moo tax la ma waxoon daaw jéeg ne Sëriñ Muntaxa dañoo ñimaloo boppam ndax la mag ñi daan def njaareem Sëriñ Tuubaa dañ ko def ak mag ñi loolu la ñu ñimaloo ndax toog ak ñun di ñu digal ñuy def Sëriñ Tuubaa nii la waraan def mag ñi mu leen daan jàngaloo xasida ah daa leen sotti parfum sikki yi mag ñi Sëriñ Masamba mas naa daaj xasida di jàng ba ku tëdd ki tàggoog sagom maam Cerno Birahim daanu ba mu daanoo sëriñ bi ne ko lan moo la daanee njàng nu njàng mi wala ki bind mbind mi mu ne ko mbàkke xaw ma lu ma daane mu ne ko moo ne de ki bind mbind mii fa mu ko doon bindee fan ko yóbboon ah, kun fa yóbboon ku dul sa waaj yi lu ko fa jëlee lay waaye du bind lii kon ku tedd ki xamoon na li nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha indi moom ab moom démbam ju maam tayam ju ne day gàtt démbam kon daal ñu ngi sant ñu gën a góorgóorlu la gën a dëgmal suñ Tuubaa di soññu ndaw ñi nañ xam ne ndawi Tuubaa ñun suñu suñu fierté wala suñu ngëneel wala suñu pësteef mooy liggéey suñ Tuubaa nañ ci sax lan mooy kàddu yi nga xamante moom ngeen tàggatoo. waaw li ñu tàggatoo mooy santaat Sëñ Tuubaa ñun daal ñu ngi toog fi ñu ngi toog fii di nox ci xasida yi yenn saa yi ñu kafe bekk loolu la ñu dund ñu ngi ñaan ñëpp jàmm mbaak ngeen dégg reportage bu solo bi nga xamante ne def nañ ko fii ci waañ wi nekk ci biir kër sëñ Touba gi daayira eh, ahlu café bi nga xamante ne ñoo ànd ak soxna maam Issa Mbacké ñu koy nuyu de passage di ñaan yàlla yokk aw fanam ak wér géramam ci barkeb Serigne Touba ak mboolem eh, membre yi nga xamante ne ñu ci ginnaawam mbokk ci kanam tuuti danañ demaat ak ci yeneen waañ ndax xam ngeen ne tey nañ ne eh, wàllum a الهداة المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى خسائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى هاجت قصائدي قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن